asalaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñoo ngi fii ci bés bu màgg ci bés bu tedd bés la boo xam ne que bés mënu koo gën a màgg ndax tedd muy bésu laylatul xadr weeru koor dara gënu ko màgg laylatul xadr nekk ci biir koor doon tamit bés bi gën a màgg ci bés yi ñu nekk ak euh, kilifa gu màgg di Fallou Baye Serigne Fallou Baye nag lañ fekk fii ji ak mbooloo mi mais buñ jógee fii ndax discours bi mën a am fii gëmma ma ne am ko ci bâche bi dina yomb moo tax ñu bëgg koo am fii mu waxal ñu ci ngëneelu laylatul xadr ak euh, bisu laylatul xadr ak lépp lu mën a juróol nit ki ci bu ci farloo jàmm ci yàlla ci ngëneel loolu lañ bëgg baax a baax sëñ Fallou baay ñu ngi lay ziar bu baax ci bis bu màgg bi ak kii di sa doom mu nangu la mu nangul la waajur gi nga nangul ko doom bi doom ji kii di Ibrahima Kayta di koo xam ne ko wax dëgg yàlla gis nañ fi nga ko teg bu baax ñu di la ci sant bu baax di la gërëm moom it gis fi mu la teg bu baax jaral nga ko mu jaral la kon yàlla te yàlla jaral leen yàlla yàlla xeb dolli looy nuyoog àdduna war nga këpp bi lay seetaan ci bis bu màgg bi loo ci wax alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala ñoo ngi sant yàlla tabaraka wa di julli sentu yàlla muhammad sallallahu alayhi di ndokkeel mbokk jullit yi ci liggéey bu tedd bu màgg bi nga xam ni yàlla tabaraka wa taala moo ko wàcceel xeetu yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam muy laylatul qadr nga xam ni moo gën junne weer dinaay wax toujours ni guddi gu gën junne weer ku ko màggal te gënoo junne góor war nga seetaat li nga màggal lu mu doon guddi la goo xam ni nag guddi dogal yi la ci la yàlla di attee atteem yëpp ñi war a jëm ba dëwan yàlla nañ ci bokk ñuy wér yan nañ ci bokk lépp loo xamante si dogalam yi la ci guddi gii la koy wàccee ah ñuy sant yàlla nag si Ibrahima Keita borom butéel bi sama doom la loolu la yàlla dogal muy nit ku baax itam du bis bii rek la may taxaw moom bis bu ma am da ciy taxaw bis bu ma am moom laa gis nit koo xam te ne bu ma tegle woon juróom weer di def gàmm juróom weer yëpp moo may jox nag mu ngi nii kii du boroom butéel boo xam day joxe butéel rek butéelam bi butéel bu mag la bu baax la bu barkel la moo tax mu mën def loolu nit buy saafara nit ñi seen jàngoro war na saafara seen social itam te moom ñaar yooyu yëpp la taxawee kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla tabaaraka taala lépp lu mu sumb yàlla egg yàlla may ko wér ci barke guddi gi yàlla may ko itam dalub xel te yàlla may ko sago itam ba mu eggale ci jàmm keroog ba ñuy def gàmmu njool teraanga bi ma defal xaw ma nu mu toll te yéen a ànd itam lii di suñu bis itam ñu tuddee ko ko mu defal ma si lu bare ki nga xamante ni si moom moo yore layla bi keroog ma woo ma ngóor si indi lii xanaa moom kooku moom ban façon nit la ma kookoy borom butéel bi ah butéel bi nag waaw butéel yi kon nag yal na butéelam bi ni tëll ba lépp lu mu ci ñaan borom bi nangu ko comme ni mu ko doon nangoo ku yàlla nar a dimbale dalay lay boroom ndimbal moom borom ndimbal la kon ñiy wut ci moom butéel bi man publicité ma sama doom la dama war a wax ci moom société sama yëf la mbiram dama cee bokk di ko sant bu wér waaye di la sant yow mi itam ndax li ngay liggéey ci biir Sénégal lu leer la te bul sonn bul toogati kenn ka ñaanam la lépp ngay am lépp ngay am ci barke Baye ak Bayam barke Cheikh Tidiane bul waxati kenn ñaanal ma am lii bul ñaanati dina ñëw lépp day ñëw parce que li ngay def ku ko def am lu baax li ngay def ku ko def am lu baax yàgg nga depuis avant tey ca ba ngay taalif ci làmb yeeg yaa ngi soog am daj sa place am na yàlla barkeel la te fi nga jëm itam yàlla gunge la ba nga egg fa mais ñu ngi koy sant bu wër ci mboolem teraanga bi mu def jëmale ko ci man waaye jëmale ko ci guddi gi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax wa axraja ibnu xuzaymata wa ibnu xabbaana an salmaana radiyallahu anhu annahu qaal xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi axiri yawmi min chaaban fa qaal yaa ayuha nnaas qad adallakum chahrun azimun mubarak chahrun fihi laylatun xayrun min alfi chahr chahrun jacala allahu siyaamu leylihi siyaamu yawmihi farida wa qiyaamu leylihi tatawwan ibnu Habbaan mu ni dafa jële si ibnu Xuzaymata mu ni yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xutba na leen ci fan yu mujj ci Chaabaan mooy weer bi nga xam buñ ko génnee rek dugg weeru koor mu ni leen yéen nit ñi xam leen ni nekk na si seen kaw weer bu yàlla barkeel biir weer boobu benn guddéeng ci boo xam ni moo gën junne weer te junne weer 83 ans la wala nga ni 80 yu yu teg wala 84 ans waaye loolu xam nga ni dund ko yombul kon boo ci boo jaamoo yàlla ci guddi gi yàlla nangul la li nga ko jaamu nga ñaan ka mu nangul la wax dëgg yàlla loolu mënuñ ko woon am lu dul nekk bi ñu nekk ci xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam amul ku ko mën a fay ci xeetam bi lim ñu defal mérité wuñ ko mbaa xam la rek ak teraangam yàlla tànn ko pour defar ñu bokk ci ay njabootam defaroo ci kon guddi gi amul guddi gu ko gën a màgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nag dafa waxoon Aïcha umul muminin ni ko am na guddi goo xam ne moo gën junne weer loo ci def yàlla nangu ko Aïcha ni ko su ma fi fekkee ba déwén lan laay wax mu ni ko waxal ni allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa faafu anni waxal yow yàlla yow kuy jéggale nga te ku tedd nga jéggal ma yan nañu yàlla jéggal ndax njéggalu yàlla ku ko am di nga kontaan trop yan nañu yàlla jéggal te lépp lu ñuy def itam yàlla bañ bañ koo gis ndax ñun ay nit lañu matuñu dañ ñoo tuddee nit parce que dañoo manqué kon nag ñi ngi sant yàlla ci daje bi di sant Ibrahima bu wéer sama doom la sama doom la te ku baax la ta ku am yar la ku am teggin la ndax li mu am nii xam-xam la bu ko yàlla may yàlla mooy may xam yi ñoo bëre te wuute am na looy romb nii naan lii du dara fekk am na ko am si la amee dara kon moom lii nii yàlla moo ko dénk muy sama doom nag lii may wax ci moom nag dama ko war a wax ci moom di ko wax ndax ump umpale ci dara lépp lu ñu def ci laylatul xadri bi lépp lépp man maa ko def tout waaye lépp moom moom ko jox. lépp laa wax laylatul xadri bi li nga si gis yëpp moom moo ko def man maa def lépp moom moo jox lépp ma def lépp. yaa gore rek. te ki muy defal wax naa la ni ku ku yore teraanga neexul daral boroomi junne boroomi dërëm boo ko mayee junne day naaw waaye ku yore million kooku soo ko mayee junne du ko faale. Mm. te dama ni barke dafa gën million parce que million boo ci dindee million lu ciy des. million boo ci dindee million lu ci des day jeex barke boo ci dindee million du sax yëngu kon nag waaw kon nag ñi ngi ñaan mboolem ñi fi teew ñi nga àndal sa technicien yi yal na yàlla may leen wér sàmm leen lii ñuy def lu am solo la ci weeru koor bi sama néeg laa tëdd tàkkusaan laa jóge daara ji bés sama commande gis leen ngeen di waxtaan ma gis ngeen te xale yi waxuma sax man sama sama sama doomu bopp bi ñu ci génne muy jàng sama élève mhm. waaye yeneen ñeneen ñi ma xam ne kii nii cheikh mi boroom xel la moo xam te ne xel mu yàlla barkeel man dama njort sax kii deful daara man sama <laughs> xalaat laay wax sama lan laa tëdd seen xale yi ni ñuy jàngee ndax du du suñu xale rek la génne gis naa ñeneen parce que Tektal TV kenn moomtu ko ñëpp ko bokk dama ne la Tektal TV tegtale na waaye tegtal la ci biir tegtal yi tegtal na itam ñu bëri ñu doon tegtaloo ba ñu xam ni tegtal a ngi nii ñu tegtaloo waat ci macha allah macha allah rek waaw loolu la ndax jullit bu mënee gis lu baax du ko wax mm-hmm. war na seetaan jullitam fu mu nekk mm-hmm. loolu nag sa yar moo la ko may boo gisee euh, tele bi gë yàlla gën a barkeel ci àdduna bi nga nga dugg ci seen biir mm-hmm. ñu yaatal la ñoom it te yow nga yor sa télé bopp te sa télé bi di takk fu ne loolu sa mbaax la waaye fu mu toll yow dara dara terewul aasigu ñi ñi ñi la ku la bokk sax da ngeen di ànd di xéewalante rek waaye yow yaa gën siiw ñu lay bokk. <laughs> dëgg kon mais ki ñaanal Ibrahima bi parce que tamit euh, mbirum tegtal Tektal TV buñ koy wax xam nga sëriñ si ñu bari da ngay toog kenn ku ne bëgg mu mel ne diw mooy sa comme ci maani doon bëgguma tamit may ànd ak nit ci dëgg mu mel ne dañuy ànd ci yaa ma neex wala naam toog naa ci télé sax ma ne ko bu may lim ñu tàlli ñi damay. ci ci ñi ci gën a tuuti la nga bokk waxee ko ko noonu te ku laaj ma ne la Ibrahima Keita bi mel na nii mel na nii mel na nii wax la dëgg léeg dina dem ba mel ne dafa am lu nu boole loo xam ne que lu nu petoo ci suuf la te fekk dëgg la ci biir lu mu ci mën di doon da ngay seen ko bàyyi mer ñëwaat santaat xam ne moom moo nekkoon ci erreur dafa toog ci tele ne ma ma ne ko amaguma oto de mu ne ma di nga ko am balaa yàgg ma toogaat ne ko maa ngi dugg bus maa ngi dugg Ndiaga Ndiaye maa ngi dugg car rapide maa ngi dox ci mbedd bi mënu ma ku mënul ñu defaat émission mënu ma ku mënul nangu mënul yalaan war a mën a nangu sarax léegi essance rek laa la laaj pour nga am oto bi mais léegi dina am papier bi may jël moo yor ko ne ko bindal fii signé ci télé bi mu bind signé nga xam ne ko ku dugg YouTube def Tektal Ibrahima Keita di nga ko gis suñ deuxième émission bi mu defee loolu mu bind signé ne balaa décembre ma koy yuuxal pour lu gën a sori man ko décembre li des bëreetul de parce que ñi ngi booru octobre kii novembre côté yooyu quoi li des matatul deux mois mu ne ma ne ko décembre bii mu ne décembre bi bind signé ñu toog ñu woo ma jox ma oto ba bi ma joxe oto bi ma toog ne teg ne naa lijjanti kii maa ngi naan est-ce que du baneen parce que bii digoon nañ ma ko ma toog clients yi ci boppam ñoo commencé di ma woo di ko woo ne oto ba jot nga ci mu ne baneen a ngi ñëw baneen ñëw mu toogaat ci émission ne balaa déwé na balaa décembre beneen décembre de di nga yor sa télé bopp télé ba ma nekkoon man maay ka fa gën a wóor la place tele ba changé am ñu dem nu sax ba jàpp ne ay euh, télé ba mu nekkoon dafa tëj ma ne leen du ma nekk ci luy dellu ginnaaw ma ko yàlla tele ba dafa soppeeku tudd na naneen man ma dem wuti leneen li ma berloo lii bu doon ci saay rek mu ne ma demal defi nangam xum lu dugal sama bopp ma dem def lii Tektal TV defal ko sama bopp mu dox te yàlla def na ni ñiy jaar Tektal TV ak ñi jaar wal fajiri ci sëriñ bi xam na ne jëmmu Tektal TV bi lim leen di indil ci retour du Touba TV moo leen ko indil du Walfadjri moo leen ko indil kum ci mën di doon xam nañ ko parce que nit ki moom euh, lu ne fang kenn du ko jeex boobu ñëwati tey jii lan di waxaat laneen lu kii mu ne ma ba ma lay wax télé ba day sa yaa gàttal sa ambition rek mais boo ko gàttal loon am na laneen lu raw sax lii lii tey jii bi ne enregistré la léegi lu mel nii nag buñ ko waxee ci télé nit ñi seetaan dinu xaar mu toogaat ne makka te du dugg avion lu ci mën doon mu wax ñu toog ni xaar kenn ku ne ñooy dem ba gisal seen bopp ne lii mu waxoon am na te man taxaw ma wax ne am na moom it taxawul wax ne am na nit ñee ko waxal seen bopp léegi loolu ku ko xoolee ci côté xarit noonu da nga naan man dama farak kii te fekk man du kii laa faral ma dëgg lan ànde tey jii laa koy wax ne ko musuma gis papam musuma gis yaayam musuma gis la xanaa kuy sa xarit bi ngeen mel ne ni loolu yëpp war ngeen fa àgg kon mu la ne liggéey bi nu ànd dañ cee gis dëgg gu wóor ci loolu la ñu demee tam teg ci oyof gi oyof toy ba pare tamit ci biir mu ne ku gis garab boo xam ku ko utiliser mën a mooy yàlla mu gën a dox sëriñ bu mel noonu moom melul noonu jël engagement yoo xam ne que ci biir nit ñi ci biir li muy def da ciy wax ne toujours ngëm yàlla ak nit ki bu mu wàññeeku ngëm-ngëmu nit ki bu mu wàññeeku euh, dëgg na ci nekk mu ne ku utiliser mbiram na moytu mooy na moytu wuruj na moytu lii kon dèjà bu doonoon ci saayir saa dara balaa ngay am dara ci garab bi yow jubbanti gim la jubbanti bénéfice ñëw na foofu kon ku mel nii euh, lan ngay ànd ak moom ci lu dul dëgg loo man ci moom parce que dimbali wu ma ko de ñi may indi laay dimbali tax billaahi nit dinaan ma numéro Ibrahima Keita mën na la jëlal 77 290 14 10 ne ko maa leen boole rek pour prétexte te numéro bi moo ko jox laa joxe ci télé bi kooku mooy wëlbatiku di ma woowaat di ma sant ka ma boole loon bég naa de fa laa yóbbu loolu doyul nga ne lii moo tax ma ànd ak moom ñi may liggéey la nii amul bis bu may toog te ñoom ñëpp danoo këru numéro di ko joxe dëgg mooy lu am solo beneen bi li nu indi fii damay toog ak yow billaahi ma toog ak moom li muy wax ci lu rafet ci yow maa xam nu mu toll ñii nii amul ku la ci soppul ndax Pastef bi mu wane ci yow pourtant nit ki mën ngeen xamante xamante bu yàggul mais cofeel gi am ci dëgg ak yéene day mel ne ay at lan xamante bii ni ñëw fii dañ mel ni sentir ne am nañ fii cër te bii mooy ñaareelu yoon ñu fiy teg tànk mais loolu lu ko waral am na foo ko teg am fun la teg am foo teg yàlla kon ku dul joxe cër doo am cër te yow da ngaa joxe cër ba doy mu delloo la cër kon yàlla yàlla xeb dolli mais mu bëggoon xam fàllu ak baay ku ko doon teqale mooy lan day laal ci fàllu sëñ fàllu laal ci baay ñas loolu lañ bëggoon xam. kenn mënu leen teqale hmm. waaw fàll baay la fàll baay. Fall Baye Mouhamad Fall mooy tuur bi. Ah, maam Cheikh Ibrahima Fall day ñëwaat foofu. déet Mouhamad mooy tur bi. léegi nag Baye ñas mooy sama wasila. li ma liggéey fii nii ci biir àdduna bi liggéey ko ci biir euh, faydu bi. Mhm. moom moo tax ma liggéey ko. léegi nag moo tax ñu ni Fall Baye xale yi nag di ko wax Fallu Baye. mais Mouhamad Fall Baye la. Mouhamad mhm. Fall Baye. Ah, ak Baye kenn mënu leen teqale benn la. kenn waaw kenn mënu leen teqale ndax man taalibeem laa mm-hmm. mu def ci man teraanga boo xam ne àdduna bi yëpp di si jëriñu fii ba France fii ba États-Unis ay nit dañuy jokk ci man ci lu leen di yokk ci wàllu yàlla ak yonentam bi yëpp xam naa wax na ma ci waaw loolu nag moo indi fàllu baay bi maanaam Baay Ñas mooy suñu wasila ñu jokku ci moom ñu ñuy wax noonu léegi nit ñi nag pour gàttal ka ñu ni Fallou Baye waaye Fall Baye Fallou Baye sëñ Fallou Baye Niass yooyu yëpp yëpp Baye Niass la benn bi la waaw kontaan nañ bu baax a baax jërëjëf sëñ Fallou Baye léegi tamit euh, voilà ok waaw bisimilah mu ne mu ngi lay sant di la gërëm Ibrahima Keita borom butéel bi ak borom butéel yi ak borom weer wi ak biddiw bi ak jant bi waaw ci ci loxo bi ñu ngi lay sant di la gërëm. mu ne jox nga ko cër bu baax ba mu xam ko nee na jox nga ko wàccuwaayam bu baax ba mu xam ko. nee na li muy rëcc mooy lim la yéex a xam. bu la tee boo ko teeloon xam. nee na bu teeloon xam bidéo beeg weer du ko def mu wàcc ci loxoom ndax daf laa rus. sëriñ ñu ma doon dingat ba ma wàccee ko. yi ko doon dingat ba mu wàccee ko ñu ngi fii. ma leen bis ngi ñëw daa xam ne yéen a war a topp si man wala man a topp si yéen ne bis ngi dina xam xam yéen war a topp ci moom wala moo war a topp ci yéen dina leer. waaye man sama jëf lay wane. moom jëfam lay wane. waaye après. waaye après. après ci la gisanteeg yow. bu nga teeloon gis. nee na bu la teeloon gis. nee na bu la teeloon gis avant mu sauvé ñeneen. waaye waaye yàlla lu muy def dem na ko. yàlla lu muy def def na ko. kon. kon mu ko génnee ñoom jamono ji dañuy jaaxle. ñoom bi mu ko jamono ji jaaxle na tot. ba may toog. nee na ba muy toog këram. ki nekk sama gannaaw. ki nekk ci ginnaawam. mu ne la diw mu ne waaw. Fallou Baye mu ne waaw ku la fonk la ku mu ne diw mu mu ne ko Fallou Baye ku la fonk la ku la jox cër la. am na yenn yoo xamante ni bu ko defati. am na yenn yoo xam bu ko defati. ndax kooku am na fu la teg. may naa la nag lu la neex mën ko def. may na la mu ngi fi nga dëkk. mu ngi am na koo xam jox na la cër mi ngi fi nga dëkk. avant lii di xew. avant lii di xew. mu ne dana dana am lu mu la tuddee. mu dina am lu mu la tuddee. parrain bi moom bett mu ne parrain bi moom bett ko. Hmm. macha allah. macha allah. mu ne la nga nar jël. mu la nga jël di ko joxe ji faneen jox ko ko moom. mu ne jox ko ko moom alhamdulilah. dégg naa fi nga wax. Mhm. Mhm. yow mi jëlal Ibrahima nga jox ko Fallou Baye parce na fu mu la teg te boo demee foofu lu bëri laa mhm. ma lenn loo xamante ni man ah. dama koy dama mu nee moom moom bul faale la amul lenn lu muy nëbb nëbb moom lu mu war a wax da koy wax. ku ànd na ku ànd ak yàlla. ànd ak yonent bi ànd ak moom ànd ak moom. nee na tiitul dara ragalul dara. ku tiit dara amoo dara waaw. dara ku am dara. ak dara. sa bopp da fekk moom mu ngi si gannaaw. yàlla moom ko yonente moom ko. nee na lu mu tiit amul lu mu ragal. ndax am na wéeruwaay. am naa wéeruwaay bu ma sëkk. bu ma sëkk macha allah. kon ñàkk cër boobu ñu ma jox. Mm-hmm. bu doon teeloon xam yooyu du mu ko def. nee na lu muy mu nam na ne yàlla lu muy nam mu def na ko pare. bi ma wooyee ni ma xaalis bi ma wooyee ni gàmm gi jot na. bi mu ko woo ne ko gàmm gi jot na. parce que ah, dafa am si nekk. mu am ci loo nekk. yàlla na ma am yàlla jàppale du ah, mu ne yàlla ba mu ko jàppale du tey. mu ne suba laay dem ñu daal yàlla na yàlla teg si yoonu jàmm. mu ne yàlla ko yàlla teg ci yoonu jàmm. nee naa sànq bi émission bi. waaw ki nekk sama gannaaw. nee na ki nekk ci. nee na ki nekk ci ginnaaw moo ko gënal ndeyam ak bi ma am tey moom ko nee na lu mu am tey ginnaaw yàlla moom. nee na macha allah nee na lu mu am ci diggante moom borom moom la. Hmm. mu a yàlla xewal ko dem demal toppal ko diw. Hmm, Fallou Baye Fall macha allah. macha allah mu ne Jibi Ndiaye nga mën a doon seedeem. ba may toog suñu biir nag mu ne dana am a may indi carte tuddee ma. mu ne dana am benn affaire. Hmm. wax na ma sax. san loxo bi weer bi nañ siy def moom loxo bi weer mhm. léegi bu dee amee ñuy di nga kii bi moom kilifa gu toll nii jël carte yi invitation def ci weer weeg jant beeg biddiw lu mel noonu loo yëg yow. dafa nangu. jël na cëru bañ. ma man man nangu mu nangu moo tax man ma nangul ko. nga ko yàlla ànd nangul. ma yàlla ànd ñun ñu nangu. ku nangul ku yaa xam. kon ma dama nangu. moom nangu na. nangu naa. ku nanguwul yaa xam. ku nangoo moom te moom mooy autorail bi. autorail bi rawal. dootoo duggati. nangu nañu. sëñ Fallou Baye gis nga cër bi la Ibrahima Keita jox. lii mu wax nii. al tàng na nag jër nag. mais kilifa nga. Euh, loo ci mën a yëkkatiwaat ci kàddu rek. waaw rek ndax moom daf ma woo ay. cinq heures ni ma dama lay indil suukaru koor wala ma xaar ba ba laylatul xadr ma ni que effectivement layla bi yow lañ ko tuddee parce que ñoo ngi ko doon nëbb sax di xaar ba carte yi génn man maa leen wax ni leen kii sama doom la te xam naa ne sama doom la àdduna bi duñ fi yàgg ndax yàgg leen fi tëwër waa maanaam en globalité nit du yàgg ci kaw suuf comme doo fi yàgg nag temps bi nga fi am da nga war rafetal ci mboolem mbindeefu yàlla yi yàlla wax na ci alquran mu ni wa min annaasi man yaqulu rabbana atina fi dunya wa ma lahu fi l axirati min xalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba annar ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sariu lxisaab yàlla mu ne am na ñoo xam ne dañuy occuper seen àdduna rek pour mu baax nee na am na ñoo xam ne dañuy bëgg seen àdduna baax seen alaxira baax mu ni ñooñu nag am nañ cër ci yàlla te ñooñu danaa leen jox nee lu rafet ci suma leen di atte atte bu rafet te gaaw laa leen di atte kon moom lii mu wax ni lool loolu laa ci gis maanaam moom dafa baax moo tax ma jël cër bu baax bi jox ko ko te jox bi ma ko ko jox moom da ko mérité te li lay wan daf ko mérité mooy lii mu ci wax waaye lii mu wax itam lu rafet la kenn ku ne ak sa gis-gis wa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur ku mu neex gëmal ku neex weddil dëgg la wol du dëgg waaw kon nag moom li muy def barke moo ci nekk te ñëpp ñi nga xam ne am nañ soxla bëgg mu faju maa ngi leen di wax nañ dem ci moom ñu ci Ibrahima Keita borom butéel bi waaw bu feebare ñu mel ni ñun ñoo koy faj waaye yaram bu feebaree ak poos bu banque kii moo ci gaaw ma ruuxu bu feebar ñu mel ni man ñoo ci ay waaye ma ni feebaru yaram ak poos bu feebar kii moo ci gaaw loolu la yàlla dogal nit nag bu ñu iñaanante te bu ñu soxorante comme yàgguñu fi na nañu nangulante waaw ah, loolu rek moo si nekk en maa ngi leen di sant di sant télé bi di ñaan yàlla yànn na bi jëm kanam ba nga am yeneen mébét yoo def yàlla dimbali la ba fi nga bëgg dem nga dem fa ba li nga bëgg askan bi société sénégalaise bi yàlla may la ko ci barke Baye ak barke Cheikh Tidiane barke yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam faalu baay dundal dundal baay faalu baay dundal dundal bay faalu bay ñaas dundal dundal bay faalu bay dundal dundal bay faalu bay dundal dundal bay faalu bay dundal dundal bay faalu bay ñaas dundal dundal bay faalu bay dundal dundal bay faalu bay ñaas dundal dundal bay faalu bay dundal dundal bay faalu bay dundal dundal bay faalu bay dundal weeral bay faalu bay dundal weeral bay faalu bay dundal weeral bay faalu bay dundal dundal bay faalu bay dundal dundal bay faalu bay dundal weeral bay faalu bay bay faalu bay yo bay faalu bay dundal dundal bay faalu bay baay dundal dundal baay faalu baay dundal wéral baay faalu baay dundal wéral baay faalu baay dundal dundal baay faalu baay dundal dundal baay faalu baay njëw sir ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستقيم بالمصباح والمقباس بسر وحوى من الإخلاص ودبان أداه من أشخاص أصلوا رزقا على الكفار بمصطفى وكوثر الأسرار نبينا المنصور بالمعون عليه صلى الله كل حين فقطعت قريش كل شعبي به وعد الفيل كل رهبي أعوذ بالله من الويل ومن همز ولمز كل وقت وزمن أكون حافظا لعصري غالبا كل مكاثر دعاء واهبا أسأله سلامة في القارعة نجوت من شرور نفس قاطعة في العاديات بالسحاب ضرا فالتكفني يا رب بضلا شرا يكفيني يا المولى شرور الزلزلة ولم يكن غير الذي أفاح له هو الجليل القدر رب القدرة قلقنا بغرق بالله المقدرة يعطي فلا تين ولا زيتون إلا إذا من بحركم يكون ربي يسر منك شرح صدري كذاك يسر منك كل أمري أعطيانا ضعفة مرادي فكل ليل إنني أنادي حرم جنودي حر كل نار بشمس دين الحق والمنار بفخر يوم جوان والعرفات كون الدهروان كفاءة يا رب الأرض الغاشية بقاية المولى لأمر كافيا متين فارفعني أعلى غاية ونجني من طارق رعاية طيب لنا عيشه وسقر البروج وغيرها واجعل لي بالعروج أتم والقوت وإنا كنا في شقاق حطم عدان بالفقار أمري وقوم أعمارهم بالشر محببا غير محبس ولا أرى مرارة لنسع مسجلا نقي عميل دقاء أوزاري ونبيعه لدى الأبرار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 والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة la عطاء فاك البرايا سرفا مرء نبي المصطفى يوزيق غربا وصفا هو دليل المرتقى فاك البرايا سرفا مرء نبي المصطفى يوزيق غربا وصفا فهو دليل المرتقى فاك البرايا سرفا بدر الهدى بحر الندى طيب الورى سم الإدى منه صفا منه الرداء فصم تورا وصفا هو الخبيب المتبع هو الذي من خلقه حب أولاه الهبة أكرم به ما أسرفا هو الخبيب والقليل هو المؤسف الجميل وفرنا فر الجليل هنا وهنا هل كفى له الوسيلة ابتلل وهي للطير تستهل إذ كان سيد الرجال وهو سفيه مصطفى يا ربنا صل على من فاك الرسل وعلى من قد أجاب بالبلاء يوم الألست مصطفى صل على من بصرت إنجيل إنسى وجرت له توابق سرت آيات من كسرها لمولد قد أهمدت له نيار أكدت غارم يا الخجرات والخصم يروي أصطفاء وقر كل صنم لمولد مقدم أخشي به من غلب للمرتلى والكنفاء wasaare jeex mooy xam le bàyyi acaleen nit yi ndax fes na del nawet gudul war mooy faalu baay ki ruudi daj kenn faalu baay ji leen yéen seen jor gudul gàtt mooy faalu baay fal moo wala moo tànn kan moo tànn wala moo tànnul woon ndax la pays bi tànnoon moom la cey waay wur yi yéema yi fan moo du ñu multiplier njaate góor yaa ma ñoom ñoo fi jaar daan déplacement ngir faalu baay tungel du ngeen dam na taal na fan yaa du tungel ci pays bi de ngeen mam bu laan sëtu baay ngeen mam bu laan la mooy baay teen bu jeex mooy kam le baay acca leen ñu duy ndax fees na dal nawet gudul wor mooy paanu baay turuudi deske mooy paanu baay jii seen jiwi jor gudul gantu mooy paanu baay moo tànn wala moo tànn lu woon ndax le pays bi tànnoon moom la woon cey waay mbir yi yéeme yi fan moo doon ñu moccitule ñaata góor yàlla ñoom ñoo fi jaar daan déplacement ngi faanu baay tungunu di teew ngeen daan na taal fan yaa ci pays bi la bàyyees naan ko kaay nga dem ci ndar addina ne ba ne kundu lëndëm gi tar na sa bépp góor demal ñu xam yaay tan de miséricorde de la part de ton Seigneur car c'est lui l'audiant l'omniscient Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux si seulement vous pouviez en avoir la conviction point de divinité à part lui il donne la vie et donne la mort et il est votre Seigneur est le seigneur de vos premiers ancêtres. Mais ces gens-là, dans la doute, s'amusent. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons. ñoo ngi sant borom bi tabaraka wa ci may gi ñu doon ay nit bu ko yàlla doon fayeeku kenn mënu koo fay yemu ci mu def ñu ay jullit jullit mooy dayoog càkkukteefu doomu aadama loo ci dolli nag ndolleel la boo xamante ni ñeel na nekk jullit kon yooyu yépp ñu ngi siy sant borom bi te yeyoo na sant ko ndax ak dund ku dul yàlla amu ko moom rek moo ko am bu ko mayee xiirtal la nga koy sacrifier ci topp ko ak ragal ko ak moytu ay tereem déglu ndigalam loolu jar nañu sant ko alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi julli ci yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam di nuyu mbooloo mi kenn ku ne ci turam ak santam waaye di ziar mbooloo mi yépp di njëkkee ci ziar boobu ak nuyo boobu ki nga xam ni moom mooy na Mamadou Sow teg ci mbooleem ñi nga xamante ni si ñoo àndoog man te àndoo bi yàlla rek lal ko te itam nekk àndoo boo xam ni séentuwuñ ci lu dul payu borom bi tabaraka wa waaye di nuyu gan yi nga xam ni ñooñu wuyu si ndax nit ki la woo ci ñëwal ñu ànd bokk toogandoo tuddandoo turu borom bi jàng téeréem bi pour lan pour màggal guddi goo xamante ni si kenn mënul natt dayoom ci kalamu borom bi tabaraka wa kooku ñi la wuyu si ñooñu amuloo seen fay kon sant nañ leen ñoom ñëpp ci turu na Mamadou ak turu mbooloo mi yépp waaye di nuyu mbooleem ñi nga xam ni comme niñ ko waxee ci discoursu monsieur le directeur Djibi Diop ñooñu ñëpp ñi ngi leen di sant waaye ñi ngi si jiital directeur u di ko ñaanal borom bi tabaraka wa taala li mu yéene ci biir ndar yan na ci jot ndax nit bu si dafa gën junne weer muy juróom ñett fukki at yu teg te pour nga dund juróom-ñetti fukki at yu teg loolu yombul kon nag bu la yàlla jëlalee benn guddi nii boo ko defee rek ma bàll sa bakkaar yépp mais kon war nga ko mën a def ndax benn yoon rek nga wax ko astaghfirullah ci guddi gi benn yoon rek nga wax li ma jàngoon sànq allahumma innaka afuwun karimun faafu anni yow yàlla yow kat yaay jéggale waa kon bu tedd bi nag ma jéggal loolu kenn ku ne daf ko war a mën a wax ci sa biir xol nga wax ko sa biir xel te boo paree itam ngay jëfe loolu jëfe gi mooy lan nga fexe ba lu ñuy tuddee bàkkaar dootoo ci tab bi weeru kor nag boo gisee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ni awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa axiruhu itqum min an naar loolu dafa am lu ko waral mu ni fukk yi njëkk yi yërmande yàlla la te kenn ku ne yërmande yàlla da nga koy wut ndax soo ko amee si ngay noppalu ci adduna si ngay noppalu ci àllaaxira looy mën a def si àdduna amoo yërmande yàlla doo mën a dem mu ni kon fukk yu njëkk yi ku ko def rek xamal ni yàlla may na la yërmandem ñun ñëpp ñu àndandoo def ko mu ni fukk yi nekk ci digg bi nag loolu yàlla da lay jéggal gis nga yërmande ak njéggal bokkul ah, yërmande ak njéggal bokkul yërmande mooy ñu honoré la ñu liggéeyal buur bi ba buur bi takkal leen ay garaat ñooñu dañ leen yërëm waaye ñi tooñ nag ba 4 avril jot ñu génnee leen prison baal leen ñooñu dañ leen jéggal yàlla boole ñaar yëpp xam ne doomu aadama da koy soxla ci moom mu may ñu ko ci biir weeru koor waaw léegi est-ce que ñun dañ ñuy may lu tol noonu ba pare weeru koor jeex ñu delluwaat ci ni ñu meloon déedéet kon delluwaat bi ci ni ñu meloon lan ma ko indi li ko indi yëpp mooy ñàkk xam suñu bopp ndax saa bu ñu xamee suñu bopp rek dinañu moytu lu bare ndax kenn ku ne xam nga ni boo posé question wu lan moo tax bu nit deewee ñu koy jullee ku dee kay julli war na ko wàcc moo lay wan ni julli du wàcc kenn waa léegi julli koo xamante ni saa boo ko doon def da ngay nodd di liqaam tey ñu koy def kenn noddul kenn liqaamul lu tax parce que noddoon nañu bu yàgg nodd nag pour ñëpp la woon buñ ko defee pour benn liir am na lu tax nodd pour ñëpp la woon ñu nodd sa sa sa sa nopp bii nodd ci imam bi jëlaat beneen bi liqaam si ni xaaral ma ma kar bi ma waxoon fee balay jaar fii ndax nit dafa baaxoo loo wax mu dugg fii mu jaar fi ma ni li tax nag bu ñuy jullee néew du ñu nodd ndax néew bii noddaloon nañ ko ba mu nekkee liir liir nag jeexal na wax da nga judd rek liir loo doon liir adduna nga war a liir adduna nga war a jàng adduna nga war a xool xam noo noo koy waree ndax adduna fas la te fas buy waŋñetu la saabu bu la waŋñetoo nag biir safara rek ngay daal waaye boo ko tàggatee ba mu baax nag day daagook yow ba àjjana ta mooy jub ak jubal kon pour ñu am ma magfira ak rahma il faut que ñu tegu ci droit chemin boobu te yàlla rek tax rawatina jeunesse ab jeune war na moytu lépp loo xamante ni muskiraat la luy mandal nit ak lu mën a doon jeune bi da ko war a moytu ndax boo làqoo di ko def itam yàlla mi ngi lay gis te bisa ngi ci bis yi buñ la buñ la tegee ci kanamu jumaa ji jullee la ba pare jeexal na wax néew baa ngi nii jeexal na wax néew wax néew jëf noddoon nañu nag li xaamoon nañu jullee ci des waaye yow doo julli yow dañ lay jullee est-ce que daan nga julli bañ la noddalee li xaamal la imagine nag yow sa wëy jur jur la fi mu la war a juree noddu sa nopp bi li xaam ci beneen nopp bi nga màgg yow mel nu la neex est-ce que loolu jeunesse bu am xel war na tegu ci loolu kon jeunesse bi opportunité la si yéen ngeen dellu ci njub dellu si yoonu njub du yéex mukk li yéex mooy nga dee fekk li la yàlla doon sant defoo ci dara waaye bu mujj bi nag fukk yu mujj yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ni yàlla nag daf lay jox laissez-passer boo xamante ni si doo dugg safara mukk léegi nag ci fukk yu mujj yooyu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ni iltamisuha fi l ashri l awaaxiri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 mu ni guddi laylatul qadri man yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam li ma leen di conseillé mooy dix derniers jours yi na ngeen fexe ba ngeen làmbatu ko ci bañ nelaw waaye imaginel nag ñi jël kaamil nekk ci nekk ci nekk ci ba ba fukki fan yi jeex mu ni mën ngeen ko natt ci ñaar fukk ak ñett mën ngeen ka nakk si ñaar fukk ñeent ba si ñaar fukk juróom ngeen natt ko di ko làmbatu muslim nag mu ni yonent yàlla Muhammad sallallahu nee na diggante biñ jullee tusbaar ba ba ngay julli tàkkusaan bàkkaar boo fa am dañ koy far diggante julli jumaa bi nga julli woon ba keroog jumaa di dellu si bàkkaar boo fa am dañ koy far waaye mu ni itam diggante weeru koor daaw ba weeru koor bi bàkkaar boo fi am dañ koy far ba mu des bàkkaar yu màgg yi bàkkaar yu màgg yi yan la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa taxaw ci kaw mimbar di xutba ba yàgg saa moom mu mujj naan amin ki doon xutba naan amin mu wax amin ñetti yoon ba pare saxaaba bi laaj ko ni ko lan moo tax nga wax amin mu ni jibril moomu fekk fi may xutbaa di ñaan ñetti ñaan ma wax ka amin si ñetti ñaan yi amin bu njëkk bi mooy dafa wax ni yan yàlla rëbbu nit ku weeru koor ñëw ba dem mu des ak ay bàkkaaram yonent bi ni amin mu ni yan yàlla rëbbu nit koo xamante ne si dafa dund ak ñaari way juram bañ deeta gërëmuñ ko yonent bi ni amin gis nga loolu mi ngi lay wan importance su nit ni mu war a fonkee way juróom nit nu mu war a aaree way juróom nu mu ko war a toppee nu mu ko war a ormaalee ci moytu tere yi ci di def ndigal yi ci di jub ba ci balance ba ngay jaayee sa marché ba sax bi yàlla naan waylul lil mutaffifin alladina ida ktaaluu ala annaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiroon yàlla mu ne ñii taf-tafee nit ñi boobu yàllaa ngi wax ak ñese marché ba de mais am na ñuy taf-tafee xolu nit ñi naa la mën naa laa dimbali mën naa laa yokk ci yàlla fekk tafu nañ sa xol waaye lu mu taf fii loolu yëpp da ci dugg de du marché ba rek de taf-tafee xolu nit ki ba mu gëm la dénk la boppam te yow sa bopp sa xamoo fu mu nekk waaye lu lil mu taf fi fin dénk sa bopp koo xamante ne moom xamul boppam fu mu nekk xam nga loolu dafa métti yàlla nag mu ni ñooñu def loolu dama leen dugal xur bu ñuy tuddee waylu waaye nag yàlla mu ngi si jublu woon jaaykat bi kon ragal yàlla gi ba booy jaay sax ba bu nit ki ñëwee dina dama lay dénk sama bopp xa waaw yow koo xam yow sa bopp xamoo fu mu nekk su la nit dénkee boppam foo jëm xoolal àllaaxira ni mu soree ñaata kilomètre la kem xamu ko kat te xoolal booy dem si dénk ngay yéeg kat te xoolal amul kat kat de dañuy gas rek dugal la kat ma ni est-ce que lii nii jarul nit xalaat ragal yàlla surtout jeunesse bi parce que jeunesse bi moom moo mën a defar adduna bi adduna bi kenn mënu ko defar budul jeunesse bi ndax ñun ñi leen jur ba am ay béjaaw ñun suñuy doom yooyu ñooñu dañu ñaan yàlla ñu wuutuñu fi te loolu mooy dëgg gi loolu bu ko ku ko bañ itam mooy am kon jeunesse boobu noonu war nañ leen préparer ci lan ala taqwa awalan ñu ñaax leen ñu ragal yàlla parce que jumaa yi su fa jeunesse bi demee jumaa ji warul am fu feex dafa war a fees waaye loolu nag il faut ñu préparer nit kooku kon guddi tey bi guddi la goo xamante ni si ku ci jóge déglu ci tudd yàlla yu màgg yi déglu ci alquraan yi suñ njaboot gi di jàng xam ni alquran bu wér la boo ko dégloo xam ne ñii xaraf yi toogu tooguñu bay dem rek daal di ko gàddu ñëw ah nag xamul loolu soo jàngee alquran dañ naan est-ce que ak a mën jàng te bu Youssou Ndour doon woy fii ñu may ko li ñu am yëpp sénégalais moo bindoo noonu kon nag ala kulli xaal ñu ngi ñaan borom bi tabaaraka guddi gi lépp lu si nekk si ngëneel yan nañu ko wàcceel lépp loo xamante ni si ku ko def ci guddi gi yàlla nangul la yan nañu nangul ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant itam Ibrahima Keita li tax mu mujjee nag parce que kooku sama doom la te nit ku baax la moom mën naa wax ni su ma tegle woon di def fukki gàmmu gàmm bu jot mu yónnee ma nag fukki gàmmu laa la wax gàmmu gu jot mu yónnee ma nag te nit ku baax la borom butéel bi wala borom butéel yi ndax yàlla mooy maye su la mayee may na la nit ñi bu ñu soxorante kenn ku ne ak li la yàlla jox muy sama doom nag di xale bu yaru loxoom set moo tax ma boole ko sama bopp ñu jël si bis bii boole ko ci mu defal ma lépp Thierno li mu wax li ñu fi def yëpp moom mii moo ko def man defuma ci dara liñ fi def yëpp Ibrahima Keita moo def lépp te noonu la dëkkeek man kon nag maa ngi koy sant di ñaanal yàlla waaye di ñaanal yàlla itam waa Tektal TV nga xamante ne moom moo leen fi indi télé bii nii xaalis moo koy déplacé de waaye moom moo def lépp ndax tele bi du télé taxawaalu de tere Tektal la ku amul Tektal doo ci tegu kon nag Tektal yan na yàgg di tegtale di tektal jaam yi ñuy jub te boo xoolee programme bi ñu def si koor bi nga xam ne Tektal bii ñu am jom ñoo ko jiit fexe ba programme bi yëpp nekk ci yoonu yàlla alxuraan ji di jolli lépp di jolli wan nit ñi ne ah tegtal kat tegtalu na moom moo tax mu leen di tegtal loolu nag lu am solo la ñu ngi koy sant moom cheikh ka jiite ak technicien am yi di ñaan yàlla yàlla bu leen am benn ndok ndok ci lii ngeen di def yan na leen yàlla musal ci lépp luy gàllankoor lii ngeen di def sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp allahumma salli wa sallim ala tolaati alxaq bilxaq kanzi alazam ifadatika minka ilayka ihaatati nuuri almutalsam sallallahu alayhi wa ala alihi salatan salatan tarzuquna salatan tumidduna amwalan wa banin salatan tusimuna salatan tuarrifuna biha iya awa sikar sikar sikar